quel est le rôle de l'artiste euh, pour garder sa neutralité euh, et pour garder sa liberté euh, d'après yow c'est quoi le rôle de l'artiste xam nga quand on parle de liberté parce que la liberté c'est juste une notion philosophique ce que vous appelez liberté ne peut ne pas être une liberté pour moi et donc l'artiste n'a pas au rôle à jouer par rapport à sa neutralité ou par rapport à sa liberté Parce que dès lors qu'il y a un rôle là, il se limite. L'artiste, c'est quelqu'un qui, n'a pas, de frontières. Dès lors qu'on n'a pas de frontières et qu'on cherche un rôle à jouer dans cette liberté-là, on est restreint, on est, on est plus libre. Par contre, l'artiste, c'est quoi C'est l'artiste, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il a envie, il a le ressentiment de faire quelque chose qu'il le fasse. Hmm. OK L'artiste, son rôle, c'est pas limité. l'artiste ses ambitions ses feelings c'est pas limité ay yëg-yëg la yëg-yëg yoo xamante ne nii boo ko amee tànk defoo ko doo nekk ku man des fois dina am projet ne morceau bi bind naa ko wala sentir naa ko par force du koy bind bu ko bindul du nekk dangay mel ni addict quoi comprendre nga et donc de ce fait un artiste kenn mënu koo limité man maa ngi nii par exemple morceau bii bi ma koy def pourtant maa ngi ànd ak ma Sall ba pare naan ko dëkk bi metti na de nekk ak artiste nga maîtriser artiste moo compliqué tey maa ngi nekk ak Mimi Touré Mimi Touré bu def lu dul yoon man damay toog ne ko defoo yoonal parce que naturellement noonu laa mel ça dépend quoi ku nekk ni nga mel ni la yàlla bindee quoi. ok bugguma poste. bugguma bugguma dara. d'accord yaa ngi comprendre mais damay bëgg aussi di am cadre boo xamante ne dama ciy bëgg a exprimer mais loolu c'est red black mais ce qui est red black n'est pas Gunman Humane